parce que déjà lii moo am ci meurtre da ngay ray mbaa nga fekke ñu ray mbaa nga jàppale ku rey yan lañ ci ñoom. nii nii nii justice bi nii xaw ma lu mu mus a def de mais bu Aziz Dabala moom baara yëgoom si ba gaam parce que bu ñu jékki-jékkee di bàyyi ay nit yoo xam ne duñ comprendre lu tax nga bàyyi leen te bi nga leen di jàpp waxoon nga lu tax nga jàpp leen tamit da ngay ba gisoo léeg-léeg da ngay gis ku ñëw si réseau sociaux bi mu ne damay dimbale Aziz Dabala mais Aziz noo koy dimbale bienvenue sur la chaîne leader la télévision des grands événements ça bu programme authentique pro da si dem Vous suivre partout dans le monde sur sunu plateformes différentes, YouTube Twitter Instagram TikTok yéen a ngi ci avez xel bu baax vous baax la présentation vous fi nga ni certificat Sénégal fépp ci réseaux sociaux yi mu wuyoo ci turu Djimbory moom la ki nga xamante ni gars yi nee nañu lépp ñëpp lu ne ku ne ngi ci moo tax euh, rédaction authentique pro ànd ak maam Cheikh dalal la fi nga xamante ni mooy sa koñ. waaw fas yéene séq ak yow na nga def mbaa ngi ci jàmm. oui maa ngi ci jàmm di la nuy di nuyu maam Cheikh nakam. sant sawa ça va yaa ngi cool. maam Cheikh ça di la nuyu rek. léegi dañuy dugg directement ci euh, waxtaan wi nga xamante ni fan yee paas indi woon na polémique bu bëri. Mhm. Sénégal yu bëri joxe ci seen xalaat muy Aziz Dabala euh, génn àdduna bi mu fi génnoon adduna mhm. ñu jàppoon ci Nabou Leye ak quelques personnes yi nga xamante ni euh, justice da leen a tegoon a lox. Mhm. Sénégal yu bëri nag di ñaawlu wala di xalaat. amaana di wax message sax boo xamante ni ndax nit mën nañ koo bàyyi te atte amagul ñu gis Nabou Leye am liberté provisoire loo ci xalaat. non xam nga mbirum Aziz Dabala est-ce que xam nga kañ la lëndëm xam nga ko. kañ la kañ la lëndëm lëndëm. Hmm. bisu mbirum Aziz Dabala bi ñu jàppee juróom-ñaar ñooñu si la lëm si la lëndëm lëndëm lëndëm foofu la am. foofu la commencé. parce que dañoo jàpp juróom-ñaari nit te waxuñu la juróom-ñaari nit yi lan moo tax ñu jàpp leen. kon lu tax ñu génnee na bu ma dama ni xam nga tey dañoo jàpp juróom-ñaari nit indil ñu léegi nag juróom-ñaari nit ñooñu kassin bi lan la. parce que déjà lii moo am ci meurtre danga ngay rey mbaa nga fekkee ñu rey. mbaa nga jàppale ku rey yan lañ ci ñoom biñ ñu njëkkee présenté ñooñu waxuñ ñun ñii ñu lii lañ def lii lañ def lii lañ def wanuñu këyit wanuñu ñu këyit buy firndeel lii lañ def kon buñ buñ nee ni bàyyi wax dëgg yàlla affaire bi day mel ni baara yëgoo rek vraiment nii nii nii justice bi nii xaw ma lu mu mus a def de mais bu asi dabala moom baara yëgoom si bëgg am parce que buñu ñu di bayyi ay nit yo xam duñ comprendre lutax nga bayyi len te bi nga len di jàpp nga lutax nga japp len tamit da ngay baara yogo di len bayyi wax deug yalla ba pare tamit yaa euh, Aziz Dabala képp kuy nit war nga mën képp kuy nit képp kuy sénégalais war nga taxaw ci ay mbiram ñu yobbu ko tribunal até ko até bobu ñukoy até du du pour Aïda du pour yaay Aziz Dabala du pour mbokki ab Aziz Dabala du pour nabulay du pour Jean wala pol dañ ko àtte pour keneen ku bëgg jog def li li ñu def Aziz Dabala nga waajaat ko mais pas affaire Aziz Aziz moom képp ku gisoo léeg-léeg da ngay gis ku ñëw si réseaux sociaux bi mu ne damay dimbale Aziz Dabala mais Aziz noo koy dimbalee néew noo koy dimbalee lu dul yor sa fukki xulwaak ñaar néew bu dee nga ne danga nga koy dimbale ah? balaa muy dee kay. mais dee na ba pare fukki xulwa ak ñaar mo ci war mais kil ku ci jogaat nek ci problème bi sa bop ngay dimbalé lan ngay dimbalé sa problème sa bop moy pour bala niñ ko def ñu dila ko def mba ñu ko fi def keneen lool moo tax ñun ñepp taxaw justice nak, ak ministre bi nga xamni mo moo justice koku mo wara jog jappalé ñu ci mbirum Aziz Dabala pour ñu taxaw atté ko rapidement parce que bu tay justice bi numu démé ni su doon Amérique la war a France ñoom ñooy informé yaayam ñoo leen wax fu ñu toll ku ñu jàpp dañ leen koy wax ku ñuy bàyyi dañ leen koy wax mais maire bi yëgul tinul mel ne rayaluñ ko kooku buñ ko si bëggee teg bu dee loolu mooy justice ba na justice euh, téere la rek nit ko bind. ñun nit ñi nag ñoo war a xool kenn ku si nekk bu doon yow la nan lay demee mais yor ko nii ñu rayal ko mel ni rayaluñ ko du ko romb gauche droite bu teyee ñu jëm gauche bu subaa ñu jëm droite xamul fu nit ñi jëm. loolu bu nee buñ nee maire bi na noppi waay képp ku ne na noppi da ngaa dof. d'accord biñ gis nañ bi loolu amee. dañ lay wax kan moo la rayal ak lu tax ñu rayal la ak yow biñ la rayalee ba pare kan lañ jàpp kan lañ condamné nan lañ def ba ray sa doom bu ko defee yow mënatoo delloo si nit ki mais lañuy def kaka def loolu mooy dalal sa xel. mais wanuñu ko dara di libéré ay nit ñuy dellu seen kër. gis nañ bi loolu amee automatiquement euh, waa kër Aziz Dabala dañoo génn ñoom ñëpp ñu sol ay t-shirt ñu justice pour Aziz Dabala ñoom tamit seen taxawaay. noo seen taxawaay baax na mais xam nga ñoom ba tey dañoo am soog si seen bopp xam nga loolu. Mm-hmm. ñoom dafa am benn soog bu nekk seen bopp léeg-léeg bu buñ déggee dara rek mu métti leen loolu ñuy def noonu boo xamee nit da ngay xam ni ñii dañoo am lu leen metti justice pour Aziz Dabala ndax ayda moo ko war a wax ndax maire bi moo ko war a wax balaa ñu naan justice justice justice moo war a njëkk a def justice ba pare. parce que affaire bi mi ngi diire parce que problème bi mooy euh, néew bu xasee dugg si biir suuf suuf dafa bëri yërmande bu yàggee kenn dootul coow kenn dootul wax dara mais actuellement nii dañ ko war a àtte pour sénégalais ak façon ray biñ ko ray aussi ñu ñu atté pour loolu wa dëgg yalla d'accord buñu paré ci loolu jël ay nit né ñu ñi la ñun ñuy xaar kan nga ñu ci wan ngay rocci ñuy dem di ñibi kenn waru ci ñibi ba paré ñi nekk ci télé yi di wax gis na kenn kéwolo ay ñom pap Ndiaye ñoñu li ñuy wax sénégalais yi ñu ko mëna gëm parce que ñoñu chaque jour xola chaque jour si kaayamu Macky Sall wax nañ fi ba tay buñu ñëwaaté du doon dëgg man nak pour man won ñooñu waruñu mën gis ni seen oral daa daanu ñu bëgg yëkëti seen ci Aziz Dabala du yoon nañ bayyi Aziz ba paré nit bo fekkente dafa délé té sa bo ñëwé muy babakar Kéwaloo muy pap Ndiaye sa bo ñëwé wax ci problème bi ay mbokam di bëgga dé mais amo droit nga nopi yeneen problème amuñu fi mais jël Aziz Dabala def ko kayu beuz té yow li ngay wax yëp dara du ci dëgg ba pare su su la justice mënee leer ni yow kii deful dara léegi xanaa yow di ñu mën a génneel kan moo rey Aziz ñoom Pape Ndiaye laa wax bu wal fajiri ak bu Babacar Kiwoloo day génn xaw ma génnul ñooñu du ñu yàlla du ñu yonent dara xamuñu ko fi ba pare buñ naan ñii kii lii la kii lii la dama ne justice bi gën a leer yàlla moo ko xam. li ngay wax nii pour sànni leen xeer la wala. non sànniwu ma xeer mais damaa gis ñoom sorti yi ñuy def. sortie yooyu normal boo mënee génn ni diw ak diw defuñu dara mais xanaa yow bi ni nga xamee ni ñooñu defuñu dara di ñu mën a wax kan moo rey kon mais ñoom dañ ñu wax ku rey dañuy ñëw di jaxase dossier bi yor seenu saytaane di wax rek. d'accord waaw euh, beneen question fi may dugg ak yow mooy fan yi gis nañu réseaux sociaux. Euh, élection euh, li nga xamante ni mooy député yi yàlla def na amoon na tuuti xiiroo ŋaayoo mais jeex na ci jàmm. Mhm. sénégalais yëpp jeunesse bi yëpp jël nañu majorité bi jox ko. Pastef mm-hmm. Mm-hmm. te yow nga yàgg xeexal Pastef mm-hmm. sa taxawaay ak sa xalaat ci majorité bi. waaw non xam nga Pastef moom ñun ñëpp biñ koy xeexal euh, li fi nekkoon lañ doon xeex daal ginnaaw loolu noonu baaxul ñu jëlee ko fi après Pastef ñëw Pastef tamit bi mu ñëwee nii ah nit ku ko jox fetal ding nga di nga ko si defal ay bal quoi parce que tamit ñu jox leen majorité mooy li gën. nga xamni ni lepp luñ soxla dañ koy am ñun tamit ñu mëna tok xaar leen pour liñ ñu dig ñu defal ñuko lool kessa la du leneen na ah. d'accord lan lañuy xaar ci ñom non liggey parce que fuñ toll ni Ousmane Sonko bu bes tax moy ñew ak Basir Diomaye Faye bu bes tax parce que actuellement nii mënuñu won mënuñu mënatuñu ñoom li ñu waxoon ñu di ko waxaat parce que wax dafa jeex quoi loolu la xaar ci ñom est ce que Sénégal dina amati benen opposant bu melni Ousmane Sonko bu war len bu len bo xamni mëna len affronter. non xam nga xam nga loolu moom yëfu yàlla la mais Ousmane Sonko moom vraiment ku yéeme la parce que li mu fi jëlee ak ak ñëw bi mu ñëw ak ni mu dem ba nekk tay jii nii bëri na ñu daan wax rek mais gëmuñu woon ne dina yegg si fii te moom nag wax dëgg yàlla fii mu yegg si gëm boppam moo ko fi indi wax dëgg yàlla